bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nasaluka xayra ma fi haadal yawm wa xayra ma baad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 ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni ñu koy baaxu ji def fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci kër gi ànd yéen ci kër gi tabarakallahu <coughs> bind yéen weesu noo ngi tolloon ci tànn jabar tey ñu war a toll ci nu ñuy tànn jëkkër nu ñuy tànne jëkkër kon boo seetloo ñaara bëgg a sëy bi kenn ki jabar la tudd kenn ki jëkkër la tudd ki tudd jabar dañ koy tànn ki tudd jëkkër dañ koy tànn ndax ñoom ñaar lañ bëgg a boole benn foyer bu tudd kër ñoom ñaar lañ bëgg a boole benn néeg ñoom ñaar lañ bëgg boole kon ay tànneef lañ war a nekk ñoom ñaar ku jigéen ki jaar nañ ci bind yi wax ne nii lañ ko bëgg a tànne ndax lii moo koy xaar ci ay tâche waaw kon tànn gi daa war a am solo lool <clears throat> di mbir mu yëttee lool jigéen ji sëy waaye di mbir mu yëttee lool góor gi sëy moo tax tànn tànnoom jabar ñu ca daan wóolu ndey waaye daanañ ci wóolu baay bi ñu seppee loxol ndey ca tànn ga seppi loxol baay ca tànn ga gone yi tànnal seen bopp léeg-léeg gone gu jigéen ñëw ne yaay diw nee na daf ma bëgg kon ma ngay tànnal boppam léeg-léeg xale bu góor ñëw ne yaay takk naa diw kon ma ngay tànnal boppam moo tax tànn jëkkër jëkkër joo xam ne jii dana dëppoo kii ñu koy tànnal amrun muhim fi xayaati l marati yaxtaaju lil kathiri min al xikma wa taanni loolu day soxlawoo ñu def ko ci teey waaye def ko ci ak ndànk ndax mashaa'ir yi te mooy yëg-yëg yi santiment yi boo tànnee ñaar ñoo xam ne seeni sentiment tolloowut seeni yëg-yëg tolloowut euh, seeni réaction ci penc mi tolloowut boo leen bëggee boole ñoom ñaar ànd ga du sotti <clears throat> Ablaye Mbaye Peex nee na yàlla na ko yàlla yokku wér nag dafa am yàpp am soow nee na waaye boo leen boole ci ndab rek nit ña jóg yàpp ak soow boo leen boole ci ndab rek nit jóg mu ne waaye dugub ba nga jóge ca àll ba ñëw ci kër gi soow jóge ca nag ñu ànd ñoom ñaar nga tiim leen di fes lu tax dañoo dañoo nekk munaasib dañoo mën a ànd moo tax tànn jëkkër am na solo lool alayhi salaatu wasalaam tënkaloon nanu ko tënkaloon nanu ko jàngalekat boobu isaa ataakum daw na diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu ne na jëkkër bu ngeen ci amee ñaar bu leen seet ñetteel diinahu ak xuluquhu waaw bu ngeen gisee ni koo xam ne kii am na diine am na jom mu naa mu ne may leen ko jabar ku ngoro seen doom indiwaale jom ak diine may leen ko buleen ko waaj fa fa zawijuhu <coughs> moo tax li nga xam ne mooy euh, qadawul xayaati al usariya yi nga xam ne mooy jékki-jékki cëpp cib sëy wala mu jékki-jékki ne bañaax cib sëy bu fekkee ku góor ki tànneef la ku jigéen ki tànneef la dañ ko mën a gérer ba romb ko bu ci amee ñoom ñaar ñoo koo ci xam ne nag du tànneef mën naa am bu dara ne cëpp rek ñu réeroo ci réeroo gu mag bu sëy ba tas te léeg-léeg réeroo gu ndaw a ndaw mooy tas sëy réeroo gu ndaw waaye réeroo googu léeg-léeg lii tax réeroo gu di am mooy ñàkk tànn jëkkër ji wala ñàkk tànn jabar ji waaw lu am solo la te it sunu tànnee ku góor ki tànn ku jigéen ki sëy ba mën naa yàgg mën naa bañu doon ci sëy benn at nga dégg ku jigéen ko ne muñ naa ba sonn sëyu benn at nga dégg ku góor ko ne muñ naa ba sonn te bu ñuy tànn léeg-léeg xadra ut di man mooy xool taar dong dugg ci jigéen mën naa am sëy ba ñàkk yàgg waaye jikko yàgg ya ca tege ci góor jëkkër ji loolu tam lu ci am solo la euh, bu ñu ko dee tànn nag bu ñu ko dee tànn ki nga xam ne moo war a nekk jëkkër war naa nekk ku ñu xam ku ñu xam xablal iqtibaali al iqbaali ala ziwaaj kooku dañ ko war a xam kii wuti sa kii takk si sa doom ju jigéen ginnaaw yonent bi ne isaa ataakum diina tardawna diinahu wa xuluqahu koo xamul doo xam diineem ñun nag léeg-léeg lañuy ñuy jéem a xam du doon diine ji du doon jom ji ñun dañ fi bàyyi ñaar yooyu yonent bi wax di seet kii ñuy kii bëgg a takk si lu yaayam am moom mii lum am lan lay liggéeye fan la liggéeyam toll yooyu itam buñ ca nekkee di ko gëstu mën naa am liggéey ji de baax na ci gaa waaye nag bëgg a jàpp ne léegi moom mooy base fondamentale bi su boobaa loolu mën naa indi loo xam ne du gënal ñi nga xam ne ñooy sëy kon ndaw si ay bokkam war nañ koo jàppale ci xam kii bëgg a nekk jëkkëram kan la <clears throat> waaw sax siyaam lan mooy personnalité waaw xam ko bu baax ci ay faiblesse xam ko bu baax ci ay qualité ndax ku ñuy dénk jigéen ngeen war a am ay at di am ay doom muy xëy di la laaj ngeen di xëy di réeroo ngay xëy di ko bàyyi ci kër gi muy togg di la jox di fóote ko roote ko paase yow mi ñuy jox ku jigéen kooku war nañoo xam ci sa bopp yaay kan <clears throat> waaw su point faible yan la say force fan la yooyu yëpp ci jëkkër war nañ ko cee xam ndax am na point faible yoo xam ne bu bu fa jëkkër feebalee rek jigéen ja am complication am jafe-jafe ñu métti waaye am na force yoo xam ni bu ko ñàkkee rek kadalika doo fa de daal di ñëw waaw war nañ ko xam bu baax a baax loolu nag moo tax ba Muusaa àggee kër Shuaybu ba muy lata añ digg na ko jabar ba muy lata añ rek digg na ko jabar sunu magum daara docteur Serigne bu nekk ci Mbuur bu la jàmbal jàppalee tem boobu rek tabarakallahu ci formation saxul sedd yal na ko yàlla yokku wér moo tax keroog ba Moussa accès ñaari baat lañ wax rek jàpp ñett mu ne ko inni uridu an unkihaka dama la bëgg a may jabar sama ñaari doom yii la doon woo ngeen ngeen nga doon wëggal ca teen ba dama la cee bëgg a may kenn lu tax xam na ci moom euh, qualité yoo xam ne jàpp na ne kii ku ko dénk jigéen du doon ku koy toroxal du doon ku koy mettital du doon ku koy xoññal rek mu ne ko dama lay may ma ne kon war nañoo dimbale ndaw si ba xam tasarrufaatu kii bëgg a nekk jëkkëram tasarrufaat mooy su meree nu muy def su kontaanee nu muy def su bankee nu muy def su xiifee nu muy def su jaaxlee nu muy def jëkkër dañ koy tànn ci qualité yooyu yooyu yëpp dañ ko ca war a xam waaye su boobaa mbokk yi lii du ndaw si moo koy gëstu déedéet ku am expérience moo koy gëstu xanaa dinaa nettali soxna Njinde déggee moos li ma ko daal nettali ci sunu conférence yooyu mooy sama góor gi nga xam ne boo ma saan ñëw ne ko damaa bëgg ci sa doom yi mu jox la tàngal ngeen di macc jël jël jël benn tàngal béggee rek jox la ngeen di màcc di waxtaan bu déggee nga yooyu tàngal bi doo am jabar <laughs> bu déggee nga yee tàngal bi doo am jabar walla nga ñëw di ngoros yi mu gën ne gerte caaf teg sooy teg gi benn doom di sex dana la may jabar waaye bu tibbeeg sa loxo lump mu dàq la ma ne ko yow de xam naa boo doon may ndaw ku nday jabar boo moytul ñi ngay may du bari <laughs> ndax ñoom gerte caaf moom tibb mëq rek lañ ci xam kon war nañoo dimbale ndaw si ci jëkkëram ji ñu koy tànnal xam tasarrufaatihi su meree nu muy def su kontaanee nu muy def bu jaaxlee nu muy def waaw su xiifee nu muy def yu yëpp ñu dimbale ko ci waaw xam yi nga xam ne yàllaa ko mooñe ci moom tabaa lañ koy tuddee ndax am na ñoo xam ne yàlla dafa am luñ mooñ ci ñoom daanaka mën nga duñ tàggook moom Euh, nay xaw na caa bokk tabe xaw na caa bokk te jëkkër yi ba jëkkër yi jeex jëkkër ju nay moom tabaarkàlla moo ci xaw a gën a doy waar waaw mu ngoog bëgg nañu xamit jëkkër balañ koy dénk ndaw si sax siyaam sax siyaam ak itam ay xalaatam waaw ay xalaatam ay principe waaw ay idéologie am yooyu yëpp bëgg nañ ko xam ci jëkkër ma te ndaw si nga xam ne moom lañuy takk mën na koo ñàkk xam waaw mën nañ ko ñàkk xam euh, ndax gone léeg-léeg am na yoo xam ne du ko xam waaye mag bu waxtaanee waxtaan rek dana daal di xam euh, tafkiiru kii ak i taabiram ak ay raxabaatam ay xemmemteefam ay xemmemteefam waaye jàng jàng ko moom moomu ci angle yëpp ki nar jëkk nekk jëkkër ñu jàng ko ci angle yu baree baree bari yoo xam ne daañ ko ci xam waaw maa ngi ci e, kër gi niñ koy defee par samedi ci waxtu wi waxtaani lu jëm ci néegi sëy yi maa ngi tollu ci tànn jëkkër maa ngi toll ci ni ñuy dimbaleeku jigéen ki ba tànnal ko jëkkër waaye mbokk yi soo seetlu da nga naan ah penc mi léegi gone gu jigéen mooy tànnal boppam gone gu góor tànnal boppam te léeg-léeg ki ñuy tànn du ma jëkkër aw far la mën a doon te far ak jëkkër du ñu benn aw far daf lay nëbb ay manqué manqué am lépp waaw bu takkee manqué manqué yi ñëw waaw sunu mbokk mële ca rajo Dunia falu Seen <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér moo moo moo koy wax ne góor ñi léeg-léeg bu ñuy journalu dañ ñëw heure di wàcc heure waaye bu ñu leen embauché nag ñu tàmbalee tardé loolu noonu la koy misaale ci côté boobu euh, ki ñuy tànn mu bëgg a nekk jëkkëru ndaw si war nañu xam ay ijaabiyaatam ak salbiyaatam ijaabiyaat mooy yu positif yi am salbiyaat mooy yu négatif yim am ijaabiyaat mooy yim baaxle salbiyaat mooy yim baaxle wut yim baaxle ak yim baaxle wut loolu war nañ koo xam waaw ah, ak itam est-ce que ku man di soppi ko la comme kàkkatar wala ni nga ko xamee ca euh, quatre-vingt-dix-neuf nun la mel ba léegi l'an 2000 ba léegi ni mel la mel walla nit kuy soppeeku la waaw nit ñaare bu fekkee danga nga koo xam ci 2000 ñu ñëw 2022 muy kooka sunu waajur suñu Abdul Ahad radiyallahu taala anhu moo daan wax ne boo amee nit ngeen wax daaw waxaat ren waxi daaw ja ak juren ji dëppoo mu ne jàppal nit a ngoog sens contraire bi rek mooy sens contraire ba mooy ko xam ne ki lu mu la wax boo càmbaree tuuti gis safaan ba nee na kooku moom fu mu xam ne jëm loolu nag léeg-léeg dafa am ay question yu ñuy laaj xariti waa ji xariti waa ji la laaj ay question yu secret yoo xam ne dana tax ñu xam ki ñu bëgg a may jabar kana waaw ay question yu secret yoo xam ne ñi jege waa ji nekk ay xaritam daañ ko xam daañ ko xam te duñ ko jëw xam ay faiblesse am waaw xam ay qualité am xam yërmandeem ah, balaa muy dugg ci sëy bi ñu xam ci moom yu bari ci wàllu googu waaw ndax loolu dana dimbale ku jigéen ki ñuy may jëkkër dana ko dimbali ci ma mën a nekk ak kii ñu koy may waaw loolu lépp nag ci labat gi ci labat gi mën nañ ko cee xam bu baax a baax waaye léeg-léeg nit su ñëwee ci labat gi ñun duñ jéem xam yooyu dañuy dem ca móor ko jëmbaa meer nogay mu génn ay petaaw di nu seetal ba xam ñii seen rawaan yi dëppoo na wala seen wërsëg yi dëppoo na waaw su ko defee ki lay wax rawaat yi dëppoo na léeg-léeg mu wax lool day tas sëy ba léeg-léeg mu day yàq diggante ya léeg-léeg mu am ci su boobaa loola taxutoon ñuy wax lu ñu toog gëstu pour xam ki ñuy bëgg a may jabar kan la ndax dañ koy bëgg a dénk ndénkaan loo xam ne eh, la diggante ba bëgg nañ mu yàgg ñoo am ay doom am ay sët tabaarakallaahu ne ci kër gi di di di di di sëy ah, yooyu nag lépp daa war a jiitu ñu xam ko bu baax a baax a baax door koo may jabar mbokk yi maa ngi ci kër gi ñu ngi waxtaanee mariage jóge nañ ci tànn jabar noo ngi toll ci tomb tànn jëkkër waaw tànn jëkkër léeg-léegi nu waxtaan waxtaan woo xam ne ñaar ñii say ñoom tànnoon nañ ba noppi waaye ku jigéen ki mooy gis yu ñu wax ca tànn ga mu yëg ne am na yu nekkul ci moom mu jëm ko cee def mu yëg ne am na melo yu melowut mu jëm ko melowoo ku góor ki léeg-léeg bi ñuy waxtaanee waxtaan yu fekk na ko denc waaye wax nañ ci biir yëf yi loo xam ne lii gis na ci boppam day jël waaw dama soxna sa waxoon sa fajaru tey gii de ma ne ko ah mu ne moo ko yorub yar di ma caw ñoo yem mu ne déet waaye mu ne yàlla xam na ko daal di may nettali benn mbir ndeysaan waaye nun rek la waxtaanu fajar yi loolu lañ ci jublu ku ci ne gis ci sa bopp xay na eh, tabarakallahu kon wax naa ci buñ koy tànn eh, ci tomb bu njëkk bi mooy xam jëkkër ji bu baax a baax a baax balaa ñu koy may jabar bu ñaareel bi ci bu ñuy tànn jëkkër dañuy tànnal ndaw si jëkkër joo xam ne am na takaafu al mustawayaat wal qiyam waaw tànnal koo xam ne kii eh, xaw nañoo tolloo niveau xaw nañoo dëppoo ay jikko xaw nañoo dëppoo ay jubluwaay ay but waaw alxubara mooy borom xam-xam yi xam ci wàllu sëy nga xam ne luñ la ci wax bu dul cent pour cent yi la cee dañ du bëri ñun ñu lañ tuddee alxubara xubara yi ñoo daan wax ne ñool ñol joo dégg ci sëy ca lal tàmbali naqari naqari boo dégg ci sëy ca lal ba la tàmbali <laughs> waaw ñoo koy wax de ca lal ba la tàmbali waaw sëy bu tas rek coow laa nga départ ca lal ba kon bu nu seeree ba góor góorgóorlu ba coow du jóge cib lal sëy mën naa yàgg waaw moo tax alxubaraa bëgg nañu euh, euh, takaafu mustawayaati zaka wala ahdaaf maanaam dañoo bëgg ñaar ñaar ñi ñu tolloo tuuti niveau xel niveau intellectuel waaw kii jàng na lii kii jàng na lii wala ñu bokk jàng nangam ñoom ñaar ñëpp bu ñu bokkee jàng tubaab wala ñu ñaar ñëpp ñu bokk jàng daara wala kii jàng tubaab kii jàng daara buñ leen boolee ñoom ñaar jombul déggoo dana yomb waaw jéggoo dana yomb bu fekkee nag ñoom ñaar ñëpp kenn jàngu ci it dana yomb jafe-jafe bi kay mooy kii da jàng tubaab ba ne ar kii jàngul dara wala kii jàng ko góor ki jàng tubaab ar jabar jàngul dara léeg-léeg ci biir waxtaan ki jàng dara te kii jàngul dara mën naa xeebi xalaatam te xeeb xalaati koo nekkal ba bëccëg boo ko xeebee xeebate ko mu tàmbali laa xeeb waaw kon ahdaaf bayna zawjayni daa war a am solo lool mooy seen jubluwaay waaw seeni xalaat seeni gisin yooya njàng mi mën na koo maye nga xam ne kii ku góor ki dafa jàng daara ba tabarkàlla ku jigéen ki jàng tubaab ba tabarkàlla ndax jàng moom benn bu ci nekk amuñu amuñu nationalité jàng yëpp ñoo am solo boo ko laajee ñoom professeur Arfan wala ñoom euh, docteur euh, Guèye <clears throat> mu ngoog wala mon nel Momar Gueye loolu dana tax ñoom ñaar ñu mën a dox ndànk jëm ci lu leen may résultat di waxtaane li na ci sëy bi communication di am wóolonte di am ñuy dox ndànk fi nga xam ne fa jëm bu leeree buñ doxee ndànk mën nañ ca àgg mooy fexe ba am kër goo xam ne kër gu dal lay doon njaboot gi ne fi waaw dëkkuwaay yu noonu añ ak reer doy waaw dara du fi manque ci kër gi dama ne bu ñooñu àndee ñoom ñaar jëkkër ak jabar fekk dañoo tànn jëkkër ji ci tànneef fii mën nañ caa am tabarkalla lu am am solo waaw su ko defee ñu wut jëkkër joo xam ne ji yitte yi nga xam ne mooy yitteel jabaram bëgg-bëgg yi muy yitteel jabaram même su fekkee d'accord ci xalaat bi tam mu ormaal xalaatam waaw maanaam sa jabar mën naa ñëw ne la tey de danoo bëggoon ñu togg mbaxalu saalum fekk yow bëggoo mbaxalu saalum waaye xalaat bi comme moom ci moom la jóge ormaal xalaat bi dañuy bëgg jëkkër joo xam ne ji xàmmee na ay xalaati boppam ananiye yi ak xalaat yi nga xam ne dafa jóge ci jabaram ak même sa xalaati say goroog ñoom seen yooyu nan nga koy nan nga koy ormaale waaye wax nga tebbi bi sànni ci àll ba loolu léeg-léeg boo ko defee ni defati ko rek waa tabarkàlla su ko defee bëgg nañ jëkkër joo xam ne yasaa maaha li taxqiqi ahdaafiha wa tumuhaatiha waaw am na lu mu bëgg ngeen ànd di dox pour mu am ko waaw am na lu mu bëgg ngeen ànd di dox pour mu am ko ay projet peut-être waaw euh, famille peut-être ah bëgg nañ jëkkër joo xam ni comme am na ay xiyama ki ahdaaf muy man di roqandi jabaram sukkas mu sukkas ndi ci moom ba baa ñuy àgg ci jubluwaay bi walla moom mu àgg ca Euh, jabarit buñ koy tànnal jëkkër bëgg nañoo jéem a xam yittey jëkkër ak lii bégloo jëkkër lii bégloo jëkkër ndax am na jëkkër yoo xam ne dañu compliqué la ngay def pour mu bégloo leen loolaa leen di merloo la ngay def pour mu merloo leen mën naa am loola leen di bégloo mbokk bu leen toxal seen ak déglu ci kanam tuuti xam naa ñi ci topp tege ci tabarakallahu bu ñu dégloo waxtaan wi euh, samedi dégluwaat ko dégluwaat ko incha allah danañ jéem a indi beneen bind bu bees ci wàllu kër gi wala aziwaaj wala ci toll ci tomb tànn jëkkër ginnaaw bi ñu tànnee jabar yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen jërëjëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen këyit bëgg leen a firiñ xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S nga xam ne saa su nekk mi ngi ànd ak ñun ci biir koor gi ak bi ñu génnee koor gi yàlla yàlla seen seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu